daleen ak jàmm Serigne Gana Messere moom it bokkoon na ci ñi section de recherche woolu woon ci mbirum coronavirus moom waxtaankat bi ñi ngi ko woolu woon ginnaaw ba mu waxee woon ni moom gëmul ni coronavirus am na ci diwaanu Touba moom nag ci ay waxam mu ngi doon wax xaw ma fuy Chine xaw ma sax luy coronavirus doon na xamle waale tamit ni même bu fekkee coronavirus am na Touba nañu wax fan la amee ak kan la ak ci ban quartier tamit la amee ndax kat Daaru googu ñu doon wax dafa am coronavirus amul woon benn cas aynama takunu yudlikum mawtu la kuntu fi burujin mushayyada boo nekkoon ca palais gars yi di la garder pompe ko benn microbe néew fa. loolu tax loolu fii daa mag dee. damay wax ne ab murit xam nga nit ñi dañoo mën a gàllankoor. mën a yàqate te mën a soboote. da ngaa da ngaa jàpp ne daa am lu ñuy. yooyu dama damay wax ne xam nga. xam nga buñ demee ba am ngemee am fitu naan ay sëñ bi daa war a jël responsabilité am ak tere nangam ak nangam yooyu yooyu buñ ko dee wax xam nga. Mm. xam nga loolu lu ko jar ci àdduna man gisuma ko. Mm. Ah, sëñ bi moom bu tere daje daje nit ñi du tax du tee du tee nit ñi dee moom. Mm-hmm. Mm-hmm. te dee ci nekk ci wut lu baax xanaa moo gën dee ci mooy nit ñi dee ci auberge yi nag te nekk faak soxna si jàmbur wala ñu nekk faak lu ñu fi war te mm-hmm. ah? ah? di def lu bon di naan sàngara ba dee ca tam yàlla nag. kon daal waxi teri màggal moom yooyu du ay mooy mooy luñ koy teree. luñ koy teree. léegi am na ñu màggalut di am fi feebar bi fa tàmbali xamuñu màggal. feebar bi fa mu tàmbalee xamuñu màggal xamuñu yàlla. kon looy wax ñi nga xam ne dañuy tiit naan màggalu Kazu Rajab day tombé coronavirus parce que ñi ngi naan Touba am na fi. waaw man daal man daal li ma gëm mooy lu ma kenn tawat te it alwiqaayatu xayru min al-ilaaja maanaam maanaam fegu moo gën faju luñ digle daal te docteur lii ko ci mën a faju ci fegu nañ ko def waaye daw dee ba bañ a màggal si moom léegi yow bu fekkee ne yow yàlla daa programmé ci tawat ji ci nga war a dee boo màggal si da nga ciy dee. ndax yàlla bi mu koy wàccee yow programme na la balaa la buy ñëw ci ngay dee yow fi ne yàlla waajal na ñi ci war a dee ñii ci sibur la ñuy dee ñii ci ngas la ñuy dee ñii ci accident ñuy dee ah, ñii dañ leen di jam ñii dañ leen fekk soxna jàmbur rey leen ñii dañuy jékki-jékki na dal ku ne ak la lay rey mais ki yàlla programme wut na tawat ji moo koy rey moom munoo ko caa rey maanaam bu newoon ci seen biir di lëmbee du ca dee ki ci yàlla programme boo laqatu woon doo nuyoo doo gisub jant doo gis weerit maanaam fa micro bay aw ba dugg fi yow doo ko yëg ba mu rey la moytandiku ngi nag war na waaye bu ñu jékki-jékki rek ay ay ay màggal ak même même même ñenn ñi bëgg a jël ay engagement na dañoo war a wax na sëñ bi ñaan xam nga tali bi li ñu na sëñ bi ñaan sëñ bi juboo na yàlla na ñaan na sëñ bi ñaan moo léegi kon sëñ bi na tere màggale mooy sëñ mënu ci dara ah anta rahimu samadu rahmanu al muminu al muhayminu al bala ikfil bala wa jumlatal waba wa suq ila al a'dai kulla da anta rahimu samadu rahman al muminu al muhayminu mën naanu fil balaa wa jumlatal wabaa'i wa suuq ilal a'daa'i kulla daa'i ñaan yàlla daal waan si shifaayika makkaana daa'i kenn ku nekk sañ na koo ñaan waaye nit mënta daw ak dee ayna ma takunu yudrikumul mawtu walaw kuntum fi burujin mushayyada dégg nga te ñu ba xam ne gis nga bokk yi soboote baaxul waaw baaxul waaw soboote baaxul xam nga soboote mooy gis nga nii sëñ Tuubaa mel ñoñom mel ni nit ñi bëggee ni lu sëñ Tuubaa liggéey ba yàlla fayee ko billaahi ay quelque ni ki xalaat hmm. ak i pexe ki tic tac taxul nit ñi découragé ci sëñ Tuubaa barke Cheikhul Khadim hmm. ndax nun sunu alal sunu bakkan sunu lépp lañ ko jox sëñ Tuubaa te ñaareel ba sëñ bi la soob mu boole ñu ci programme am déedéet déedéet loolu loolu loolu mënoo ko dégg nga loolu nag bu amee jëmmi taalibe bu nekk boo waree moytandiku silwise daal na ko def bu dee nee na da ngaa war di raxasu bu dee da ngaa war a moytandiku del moytandiku li ngay lekk na nga koy xool ne loolu lépp moom la waaye nag nañ bàyyi nangam xam nga balaa da koy daw ngir balaa yi waaye nag mënoo daw balaa ngir balaa bu yàlla programme ni lii mbas la moo xam ne Gana Messere la ci tawat ji ñuy wax nangam 2020 ci lay dee maanaam kenn mënta tee ba Gana Messere dee ci deux du dee ci 2020 jooju. Gana gëm nga coronavirus gëm nga. dama ko xamul sax xam man man lu ma lu ma man moom non xaw ma ko yàlla xam na xaw ma. la tàmbalee ma xaw ma Chine it man xaw ma ko man Touba laa xam ak yeneen dëkk yeeg yooyu xaw ma jooju tawat yàlla xam na ko xaw ma ko xaw ma ko te ma ko kenn tey it dañoo war a def kum dal mm-hmm. ñu xam ne diw doomi diwa. quartier sàngam la dëkk ci Touba béréb sàngam la doon liggéey di way soxnaam ñu xam ko bu baax waaye ñun jekki-jekki naan dara xew na dëkk sàngam te mënoo dox ba daje ku ne ko sa mbokk la woon kooku ku doon duñ wax ñim doon ñu xam ko dañuy gën dimbale bu fekkee am na nu mooy tandiku ko waaye jekki-jekki rek tëboon nañ fi ne am na daarul moxti mm-hmm. ba yàgg lu ñu waxalaat seen bopp amul ah xam nga senegal seen problème mooy lu am. est-ce que amul euh, ñeneen ñuy xeex diine ñu nekk ci àdduna bi. xeex diine moom ci lañ dëkk. yi yuriduna an yutfiu nuurallah bi afwahihim ah. jaarale ci jàngoro ji. waaw xam nga xam nga tey. parce que bu ñu demee ba naan màkk jeeg umra geeg yu mel noonu. xam nga loolu trompe seen waa ji wax na ko lu leer moom Iblis représentant Iblis bu mag boobu. di trompe waaw. représentant Iblis mooy daan daanal trompe ku bon la ta bañ lislaam dégg nga moom dafa wax ne. dafa wax ne. ajug màkk gi da koo tiital. te seen ti bi leen digaloon ñu ñëw di aj si ak di umra daan na lii nag maanaam pexe muñ mën a def ba mu dakk ndax tiital na ko léegi ku ne bu aj maka am léegi kon dàq nga xajjul baytillahi alxaram li man istata'a ilayhi sabila kon saa yu ne bu aj am rek mm, dindi leen ponk bu lislaam kon léegi tere nañ julli tere nañ koor tere nañ natt asaka loolu moom xaw ma dana am xaw ma daay problème bu jullit ñi kon ñoom ñoom moom nañ xam ne kon léegi seen pas-pas moom problème baa ngi noonu léegi nag noonu mu mel ne la amee représentant am na ñoo xam ne déroulement bii di am ci doxu ni sëñ Tuubaa neexu leen barki dem lañ jógee Poroxaan riir mi mel ni ay ñu ñëw ñuy waajal Kazu Rajab bi riir mi mel ni ay bu noppee yaa ngi naan Daarul Muxti buñ tabbee yaa ngi tàbbi ci koor gi maanaam jëmmi sëñ Tuubaa yëngatu sëñ Tuubaa moo jaaxal adduna bi maanaam comité murit gii maanaam déroulement bi mu am doxiin bi mu am ci pas-pas ak volontaire gi nit ñi am daw jëm ci Serigne Touba loolu moo tëj seen bopp yi léegi xam nga bàyyi leen Serigne Touba boo ko waxee duñ ko bàyyi Serigne Touba jëru topp boo ko waxee yow la ñuy wër pour noonu la lijjantee waaye mënoon noo tax bàyyi bàyyi bàyyi Serigne Touba léegi nag ñu bëgg na léegi nañ seet léegi bu ne ab dara xew na man lu ne lañ daan wax Ebola amoon na xoolal Cheikh Sidi Moutar bi ne fi Ebola lu Cheikh Sidi Moutar wax dane doo leen ko gis looloo gënoon a garaaw mu riir te ab jullit dafa war a rafet njort ab julli dafa war a rafet njort gis nga yàlla bu wàccee balaa wàcce ab nattu ku mën a ku ku yàlla tudd na nattu bi dana dal sa kaw yàlla dana teg nattu bi sa kaw bu fekkee am na it ñi nga xam ne ñoo yor wàllu wow ñoom it duñ bàyyi ñu ko yurut di wër mbedd yi yeeg dëkk yi di terere am réew buñ ko tànnee buñ ne sécurité bu ne am na lu xew ña yor sécurité dañoo war a jóg dem ca gox booba xool ko contrôler loola mais doo nekk ba ñu rey nit ñi nga jóge fële pip pip pip pip ñuy corné ko wëri koñ ji baalay mbel médecin euh, la mort amul sens tawat am na ñi yor wàllu wér gi yaram kenn mënta xëccoo ak ñoom ndax man feebar bu ma xamul te xaw ma nu muy dalee mënu ma caa wax xaw ko waaye ñoom ñoo war a dimbale bu nekka sangam am na Touba automatiquement rek war nañoo ñëw ñoom déplacé wu toppatoo ko xool ko bu dee dëgg ñu ne am na moytandiku bu dee zone bu ñu a baare ñu baaree ko bu dee lu war a régler ñu régler ko ubbi ci boppi nit ñi parce que séntu tawat ju ñëwagul dong nga yàpp nelaw daal moo gën a metti feebar ah kon buñ ko defut mais Sénégal ñoom la yàlla nattoo lu ne am nañ ca commentaire wax naa ko ba tey fi ne bu football bi ñëwee ñëpp ay coach la ñuy doon match bi waruñoo engagé nii di wërta dugale nii di wërta dóor penalty waruñoo classé diw bu làmb ñëwee nekk ñëpp nekk ay manager diw wërta def nangam nangam Sénégal la yàlla bindee lu jóg ñu coow ca fi ne lii niñ ko yanoo sax Italie gee gën a garaawle ay dox di sëqat képp boo nga defee wala nga sot ñu ne tur wi sax mënuñu ko wax coronavirus moom am na ñoo xam ne winis sax lu ne la ñuy wax xamuñu sax nu mu tudd kon ma maa ngi leen di gërëm nañu rafet njort te màggal si te ñaan sëñ Fallu te mucc ñëw ci jàmm dellu ci jàmm kum dal yàlla na nga wér kum dalul yàlla bu mu la dal ci barke Cheikh Amadou Bamba ab julli day rafet njort jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullah. ginnaaw waxam yi nag ca la ko section recherche daal di jox ab convocation loole ginnaaw ba ministre Abdoulaye Diouf Sarr mi yor wér gi yaramu askan wi daal di porter plainte képp koo xamante ni da ngay doon wax ni jàngoroy coronavirus amul ci réew mi ginnaaw loolee coow nag Serigne Gana Messere moom noon na doon wax ni kenn convoqué wu ko foofee ca section de recherche waaye nag leer ba leer nekk dëgg moo nañ ko niki talaata ji nu génn moom sax def na ca section de recherche lu toll ci juróomi waxtu mu nekkoon ab laaj ak tontu bu doxoon ci digganteem ak enquêteurs yi ci kanamu way takku der yi nag addiskat bi daal di nangu ndogal ni dafa juum ci noonu sax la xamle waale ni mosul dégg benn yoon président de la république Macky sàll wax ni jàngoro ji amul ci réew mi waaye tamit xamle waale ne ni dina jàppale kii di ministre Abdoulaye Diouf Sarr ci campagne de sensibilisation bi ngir xeex jàngoro Sénégal. waaw nag xanaa leen ku ko defee dara ak su ñoo ko def wax naa leen ngeen ko dindi may woo ah, yëguma ko léegi laa toog nii rek nit ñi di ma woo fenn fu nekk kenn du ma woo na ma dañuy def ci internet bi ne dara na biir gàgg si def ko convoqué ma ne ko yëguma ko après laa leen woo ñu naan ma information bi xam nga Touba ko jëlee naa nga ma leen boo man Touba laa def maa ngi fi bokk nekk boo leen amee boo leen bëggee lu leer bu ñu leen waxee da ngeen di woote am na seen moromi journaliste yoo xam ne bañ ko ko maa ngi ah, li ngay jaay jar la wala bëgg na nga fer ah, dëgg lan moo ci indi yooyu ah ak bu gànna misère bu ko brigade des recherches woo wax seen wax yi génne ma ci nekk naan dégg si biir mooy Dakar acte ñoo ko dugal nañ ma ci génne léegi rapidement wax naa leen ko te jot naa seen kilifa gi nii léegi daanaka ngeen génne ma ci seen yooyu sinon defoo leen ko suba moo presse bépp wax leen ngeen bàyyi seen yi wax yu dul dëkk yi parce que mënoo leen a nekk ci kaw nit ñi di leen émerder bu leen neexee ne xalifa général naa nga bu leen neexee ne diw sànga bu leen neexee ne diw sànga dégg nga man nag pesum gémmiñ la boroom a koy fajee boobu peut-être li léegi nii rapidement wax naa ne ko ñoom laay wax ak ñoom yëguma ko xawma ko lu xew lan moo xew lu ñu convoqué Gana ab bilaay brigade de recherche lan la ak buñ ma convoqué woon ñoom lu sérieux xaa da nga nekk ñu door ko ah, dañ ma la Pape léegi laa ko yëg hmm. yëguma ko woon léegi laa ko yëg nii dans dix minutes la ma nit ñi woo fekk woon nañ kii di Abdoulaye Mbaye Pekh ndax jàppoon ne loolee jëm ci wàll jàngoro ji moo tax euh, ñu la ciy tudd yow

non. amul lu ci ah, wax jàngale corona ji duñ ci man li ma wax leer na yàlla mooy rey. ay na ma takkuunu ji lu kumatu kuntu fi buruuji mushayyada foo leen nekk te fekk leen fa. dee eh, mën na su ko daw mais nag al wiqaayatu xayrun min al ilaaja fegu moo gën faju na ngeen fegu ah li ñi ko ko nañ ci wax fu mu doon ñu wax ko nit ñi bu ñu waree baaree ñu baaree ko bu ñu waree tere ñu tere ba médecin après la mort loolu man waxoon naa ko loolu laa wax.